السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن ko ono e musidɓe an fulɓe mi faala yo on heɗito yewo karamokojo ɗo maketeɗo oustage oumar sall ko yewti kon fi fulɓe ɓen on nani on nani ko wolɗo ko wo pol futayi pol futayi bori pol futayi bori ko ɗum woni fulɓe ɗuɗuɓe paayi ko ɗum woni kiikalahoy koye paayi paayi uh, eh, oumar sall dama lay tontu fii ñun pol futayi soo ñu woowee walla nga woo wala nga tudd sunu mag ñi wala sunu maam yi wala sunu baay nga wax paa yi du kàddu bu rafet mag ñi wala seeni pap ndax tudd nga Pël Fuuta nga tudd tudd tudd tuur ala sabili misaal maa fihi mushkil walakin annaka tuayir alqabila alfulaniya wa hada la yajuuzu fi lislaam لأن الإزبار في الزواج لا يجوز في الإسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ولكن لا يوجد في الإسلام الإسبار في الزواج mariage forcé c'est pas bon c'est pas bon mais écoutez Oussaz Oumar Sall ce qu'il entendait parler sur les pôles Paul Guinée mais c'est pas Paul Sénégal hein, mais Paul Guinée il adresse à Peul guinéen les Peul guinéen écoutez. waaw ndax moom nee na pël fuuta yi pas pël fuuta yi nee na dangay gis ab pël fuuta boo xamante ne keneen day ñëw ñaan si doomam paa bi ne duma may sama doom keneen ku dul pël fuuta mais yow nga jur sa doom yow Oustaz Oumar yow nga jur sa doom yar ko fi nga ko war a yare sonn ci moom li nga sonn ci moom jaambur jóge fi mu jóge ñëw ne dalay ñaan ci sa doom dangay wanteer sa doom doo xam ki ngay may sa doom kan la te doo xam ndax kii li yenent bi wax ndax yenent bi dafa ne bu fekkente ne ñëw na ñaan si leen doom koo xamante ne am na diina yor jikko ju rafet na ngeen ko may ndax bu ngeen ko mayul fitna lay jur waaye bu fekkente ne nit ki dafa ñëwee ak diina te ñëwul ak jikko ju rafet mootalul condition yi ñaari condition la ñoo ànd ñaari condition yu ànd la lu tax yéen du ngeen dem ñaan si libanais yi lu tax yéen du ngeen yeneen du ngeen ñaan si ñeneen ñi ngeen bàyyi pël Fuuta yi wala yéen yéen ñëpp da ngeen rêve am jabaru pël Fuuta wala da ngeen am problème ak pël yi wala yow Oustaz Oumar Sall da nga rêve am jabaru pël bu dee loolu nga soxla duñ la may bu yóbboo bu sonal sa bopp. subhanallah ana danger ana ana ban danger moo ci nekk yow bu dee ab tëgg nga walla nga doon ab jaam am nga droit ne doo may sa doom ab jaam demal Mauritanie yow xam naa ne xamoo Mauritanie demal Mauritanie Mauritanie am na biidaani am na ki ñuy wax kóori am na ñu ñuy wax xardaan am na ñuy am na ñu ñuy wax muallim ab muallim mooy tëgg bii daan mooy naar mauritanien bii daan bii daan li ñi ñuy wax bii daan àdduna du neex ba ñu jël seen doom may ko ab muallim walla ñu may ko ab xartaan demal arabi sawdit ndax saoudien yi danañ jël seen doom may ko nit ku ñuul muus nga kaa gis ñaata sénégalais ñoo am doctorat ñu jàng si Arabie Saoudite muusu nga si gis koo xamante ne arab yi jël nañ seen doom ne ko ndax kii docteur la jàng na ba am niveau doctorat danañ ko may suñ doom arab muusu ngeen kaa gis ñoom docteur Ahmed Lo fu ñuy jàngee macha allah yeneen docteur yeneen docteur docteur Tahir macha allah ndax muusu ngeen gis ku jóge Afrique dem jàng ji Arabie Saoudite ba saoudien yi jël seen doom bu jigéen nee kii ndegem jàng nga ba am euh, doctorat danañ la may sunu doom déedéet mosul am te yaakaaruma mu am kon nag ñun suñu doom yi ñoo xam kan lañ koy may bari na fi ay ibaadu yu woote ni ay mbokk la ñoo fi gën a bon ñoo fi gën a bon dama koy wax ñépp dégg ko gàttal tubéy gàttal mbubu ba pare yaakaar na ñoom ay sunnit lañu fekk xol yi baaxuñu ni ñuy jëfalante ak doomu jàmbur yi baaxul ñun am nañ ay mbokk pël Fuuta yu bëri yu sëy ak ñoo xamante ne ñoom dañoo woote ñoom ahlu sunna wal jamaa lañu dañoo woote ñoom ay mbokk lañu mais niñ leen maltraité dafa ñaaw man loolu dama kaa contre yow nag oustaz Oumar Sall dama xamul lu la xiir ci pël yi xëy na da nga bëgg ñetteel wala ñeenteel ci pël Fuuta ñu bañ la kaa may moo tax nga def muhaadara bi déggul leen déggul leen loolu àq la kon demal jëlal sa doom yi nga may leen loolu àq loolu loolu ñàkk àq la loruñu ci kenn mais man sama doom maa xam kan laa koy may man sama doom duma ko wanteer man sama doom c'est pas parce que da dàgg sa tubéy ñëw ñaar ma sama doom ma may la ko su ma gisul ci yow jikko yu ma doy duma la may sama doom sonaluñu kenn ndax amul fenn foo xamante ne yàlla dafa obligé nit foog nga maye sa doom ndax jullit la kese wala lii ak li wala déedéet yàlla waxul loolu de innamal na ixwa lool la yàlla wax yàlla amul fenn fu mu wax jël leen seen doom yi ngeen may beneen xeet déedéet yeneen bi si sunna moo ñu ne bu fekkente ne ñëw na ñaan si seen doom koo xamante ne yor na diina lislaam am jikko ju rafet may leen ko waaye bu fekkente ne dafa ñëw ab jullit ne jullit jullit la waaye jikko ji baaxul day dóor jabaram du ko dimbali am na ñoo xamante ne dañoo woote na ay mbokk lañu du ñu génnee dépense ñoo gën a nay ñoo gën a nay sur la terre waaye nag du ñëpp ndox mënuñoo généraliser bari na fi ñoo xamante dañoo woote ne ay mbokk lañu buñ jàppee seen jabar bu ñuy xëy danañ tëdd ak moom suñu gont see tëdd ak moom guddi gépp dañu tëdd ak moom at bi mun na am ñaari doom ci ñaari at ñaari doom ñetti at ñeenti ñetti doom ba pare nag bis bu ñu demee ba gisit keneen ñuy dagg seen tubéy di ñëw di woon ñoom ay sunnit lañu ba pare ñu dàq kooku sànni fa sànni ko fa xaj dem indi keneen loolu tamit lislaam fu mu ko waxee ndax am nañu ay mbokk Pël Fuuta yoo xamante ne am na ay yoo xamante ñoo woote ni ñoom ay ay mbokk lañu ay ibaadu lañu jàpp suñu sœur yi biiral leen am ak ñoom ay doom yu dul jeex sànni leen fa xaj tey ñu ngi nii mënuñoo fexe ba am sëy ndax pël Fuuta yi nee nañu ñeen da ngeen bàyyi seen mbokk pël Fuuta yi fii dem di takkante ak ñeneen ñoo xamante ne xamoo leen seen jikko xamoo leen seen aada bokk leen aada ngeen bàyyi seen mbokk yi fii ngeen dem takk keneen takkante ak keneen léegi nag yéen a ngi noonu toroxal nañ leen sànni leen fa xaj loolu yow oustaz sa Sall li nga wax ànduma ci tey te pël Fuuta yëpp dinaa leen wax bu ñu demati say tafsir ndax yow moom da nga bugg a attaqué pël Fuuta te na nga bàyyi pël Fuuta yi nag pël Fuuta da nga leen bàyyi